waaw su fekkee yaa ngi or mhm. nga tëdda nii nga tëdda nii si bëccëg mhm. nga am wet dream waaw waaw kooku dog na waaye waaye laajteem bi moom daanaka xam nañ ko mu ne comme xale bu góor boo xam ne danga nga tëdda mhm. bëccëg di nelaw si weeru koor am lu génn ci borom waaw lala ci islam waaw loolu du yàq koor léegi moom maam moom loolu gént la. waaw na jóg rek mu sangu na jóg rek mu dem sangu continuer. mu continuer waaw ok allo asalaamaaleykum am nañ keneen waan allo asalaamaaleykum allo. waaw kooku dafa mel ni line bi mu ngi break euh, imaam waaw comme li ma la doon laaj juróom benni fan yi nga xam ne yonente bi daf ko daan def mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam exactly xam nga euh, dafa am dafa am ñaari nit a xew ñoo nekk si jullit ñi mm-hmm. dafa am ñoo xam ne dañ bëgg lu bare am ñoo xam ne lu em lañ bëgg am ñu bëgg lu tuuti soo gisee euh, weeru koor nekk di farata mm-hmm. moom ñëpp ko war a woor ñi bëgg lu bareek ñi bëgg lu tuuti ñëpp ko war a woor waaye su ñu demee ba weeru koor jeex nag yàlla neñu Eh, yonent bi ne képp koo xam ne teg nga ci juróom benn fan sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. da dañ la fay yoola mel ni ku oor at mi yëpp mm-hmm. suñu waxee loolu su ko defee ñi nga xam ne dañ bëgg yool bu bari dañuy njëkkalante dem or ko ñi nga xam ne bëgg ñi nga xam ne lu tuuti lañ bëgg mm-hmm. ñoom duñ ko laal <laughs> dégg nga su ko defee waaw ñu tënk ko foofu ñu uyu kii ñu ah. ñëwaat allo asalaamaaleykum aleykum salaam na ngeen def bismillah Eh, dama doon laajte ndax nit mun naa julli fajar ay boori yooyu noonu five four three yooyu noonu ah ok ah. jërëjëf imaam waaw loolu mënul nekk. <laughs> waaw boobu moo xanaa faara faara yi ko def de julli waxtu balaa moo jot. <laughs> Mhm. dinaa la jàngal benn affaire mba mi euh, gis mhm. nga li ko dooree julli li ko dooree gexe mhm. soo jullee gexe ba pare ba ba fajar di xare lépp loo fa julli ñu ngi koy tuddee tahajjud tahajjud lañ koy tuddee mooy julli ci guddi dégg nga ñu demee nag bañ ne asalaatu xayrun mina nawmi loo loo fa julleeti ñaari julli yi lay doon mooy jullik fajar ak jullik suba mu mel ne soo julli woon fajar ba pare ñu wax asalaatu xayru mina nawmi da nga ko war a julliwaat. kon fajar duñ ko julli mukk lu dul dégguloo asalaatu xayru mina nawmi ci jàkk ji. moom mi ne kenn warta julli loo xam ne jotagut. waaw julli julli. lu dul jotagut waaw waaw. voilà waaw imaam ba léegi nag. Mhm. sas nga ma leena. Mhm. mooy ne julleg fajar. Mhm. ak julleg suba. naka la naka lañ ko dee jullee. waaw am na ñoo xam ne xamuñ ko differentiate waaw ñeneen dañoo jóg rek naaf la ñaari raka rek mm-hmm. julli fajar rek dem seen yoon am na ñoo xam ne nag dañoo julli naaf la ñaari raka mm-hmm. julli ah, fajar mm-hmm. ba pare ñoo tegaar si yeneen ñaari raka julli yëpp ak yéene bi waaw ñu ñu uyu ki balaa ñoo jël kenn si bi ah. uyul uyul loolu salaamaaleykum allo allo bismillah allo allo bismillah asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa ye mbañinin ka sorry ndamang surwa kan moy bake yo ma mm. bismillah fo a mbañinin ka ro kila kuma sabale be mbulu aha kunun mba ala programme jibe kan mhm abubakar daboli rawadan mubarak bari kendin do ba kawando la like ko eh, ni loto suna mhm so bara kelle ta ko amon musoli ta fasal deto fodo wo musoto anyi nyatale kaloto sumunake okay anin ni ijita uh, ye sumunake ma sene ime fon sene andi mm -hmm. kata salo to anin secondly mm -hmm. mbijanto la banko kam because it akoy halal mm But halal means mm-hmm. though biji sako halal, but ikafanya mean because mobu kaji ikafanya mean dentu. Alhamdulillah. Okay. So for dum woni ko halal yet sign o jiji fo nyanta sanna le bang. Mm-hmm. Inyanta subodo mo la le bang fa wajibu ya tele ka ke bang o. No. Oh. Because babo ita walbu ka fa wal ka aketindi la ni ko ketindi ro mam bete ya. Yeah. Ha nga famule ha mm. bismillah. Yes. ok ne mbaara baake yaa imam mhm. mu ne démb rek doon seetaan programme bi ramadan mubarak bi mhm. mu ne waa euh, ustaas bi fi nekkoon mhm. doon euh, xelal nit ñi si islam wax na euh, xale bu góor boo xam ne dafa taxaw tuur ndox ak waaye waxut bu jigéen ñi mu ne mu buggoon a xam si loolu dara mu ne ak jigéen boo xam ne dem na tuur ndox wante raxasut boppam mu set ndax mun naa julli hmm. mu ne leneen li mooy ne hmm. ñoom si réewi tubaab bi la gaa yi nekka hmm. mu ne léegi-léegi nga dem jënd lekka boo xam ne dañ la ne xalaal la bind nañ ko fa te xam na ne Euh, tubaab yi daanaka ñu mm-hmm. bari ñu weex ñi mm-hmm. dañ dee dañ dee rey daal comme ñun ni ñoo reyee mm-hmm. ndax buñ ko bindee xalaal ndax moom dagan na pour mujj na ko mu lekk ko ñetta yi ñooy laajteem <laughs> waaw danaa danaay commencé rek ci laaj laaj bu mujj bi mooy euh, affaire yi lekk googu soo gisee yow soo nekkee ci réew réew moo mun a nekk nga gis ñu bind ñu bind fa euh, xalaal xalaal di woot xalaal mooy ne lii dagan na ci jullit bi dégg nga su ko defee soo ko gisee mm. dagan na nga lekk ko lu dul mm. mu leer la ne lii kat dañ ci bind xalaal waaye du dëgg gis naa ñu rendi ko wala diw sangam nee na man nii lañ ko rek su boobaa du dagan waaye feeg indi nañ ko ba pare ne la lii dagan na mm. ki lañ ko bindee rek dagan na nga lekk ko feeg gisoo lu dul lool dégg nga loolu mooy la tontu bu ñëkk bi beneen bi mooy euh, affaire yi taxaw tuur ndox mm-hmm. l'islam nee na ku koy def ku ne amuloo jom xam nga jom <laughs> loolu la nee na kuy def kuy def kuy def loolu amuloo muroo a muroo a mooy jom mhm. euh, loolu maa ngi wax góor de jigéen moom waxuñ ko waaw <laughs> euh, xam nga fuy waxee lu góor kay mu mu jàlle yoo xamal ne jigéen moom moom waaye loolu moom ci jigéen moom dafa xaram da pet parce que nature bu ko yàlla bindee su ko defee ki nga xam ne nag jigéen mi nga xam ne day tuur ndox mhm. ba pare du du du du setal boppam bu baax mhm. kooka julli julli baax de maanaam da ngay gis nit da ngay gis lislaam danay advice jigéen ji nga xam ne mu ngi dem ci wanag bi mhm. pour tuur ndox dana koy advice mu fexe ba génnee yéreem yu rëy yi ngir ne bu ci sofe sobe taq su ko defee mu fexe tuur ndox tuurin woo xam ne du du du laal ci yaramam waaye fépp foo xam ne sobe ko war a raxas balaa ngaa dem di julli moo xam yére la moo xam ci sa yaram wi lépp lu mu laal te te raxasuloo ko nga dem jullee ko rek sa julli gi du baax parce que julleeg sobe la waaw loolu moom moom moom lu ñuy tontu mbokk moomu nga xam ne mu ngi ci réewi tubaab yi waaw ah, yaakaar naa ne war na ko dégg bu ko déggutee tamit mm-hmm. ah, imaam ye mu ne fo wa mu ñinti musoo ka jala ke aye loo wo haramtale musoo kama ado muso ni me fan seneyandi ite ite salijo ke nola ite ite ala ala wato ke nola ado wodo uh, kuma labango muneti uh, halal ya safe dame nyanta sanla ya ya, ya domoro ke wo aman haram bari ni ni ni la ila ni modo ya foye ko ni fengo de nga mer amanke halaloti woto kana domo a muslim so uh, ba beneen yoon incha allah waaye imaam bugga nañ one minute boo xam ne dang nga ko may ñaan ñaan mooy Gambia ni nga nekk si biti because waxoon nañ ne nañ la may ñaan saa su nekk gaa di ndeekoor mm-hmm. dinaa lay one minute waaye am na laaj boo laaj boo xam ne affaire jullik fajar ge julli suba waaw boobu su ñëwee next week incha allah